kon noo ngi sant mbooloo mi yëpp ñi nga xaay ñooy transporteurs yi ak ñi nga xaay ñooy dund ci oto te ne fii di sant journalistes yi nga xamante ne aussi bi ñu leen woowee yéen ñëpp ñëw ngeen ndax lii mooy réew réew dañ koy waxtaane mais nag bu fekkente ne dafa am loo xaay dafa noo jëm ci nun nu tiit liñ mën a def mooy woo xaay ñoo koy jàllale ba nga xamante ne daañ autorité dañ jot population bi jot ci ba nga xamante ne daañ mën a toog waxtaan ba nga xamante ne réeroo du am mais ko defu réeroo mën na ndax damay wax ñii nga xaay ñoo toog ay xale ñooy transport bi léegi quatre-vingt-cinq pour xale lañ quinze pour cent yi ñooy mag ñi bu ngeen xoolee salle bi kon xam ne quatre-vingt-cinq pour cent yi xale lañ mais ma ne xale bi am yaakaar Barça ba dugg ci gaal dee yow mi am xale bi am teraanga ñu bëgg koo yàq il faut nga taxaw loolu moo waral ndaje bi ndax xale yi dañoo yaakaar Barça rek dugg ci gaal yi dee yow nga téye sa teraanga ku bëgg a yàq il faut nga taxaw mais nag waxuñu dañ ko yàq mais bu ñu la tiitalee il faut nga taxaw jël position ba mu leer loolu moo waral ndaje bi mais du loo xamante ne nii dañuy accuser personne danoo bëgg réew mi ñoo ko bokk te nguur ku bees ñëw na di ay xale di leen nuyu di leen sant leen gërëm fas yéene ànd ak ñoom jàppale leen muy président Diomaye ak premier sama ak gouvernement bi kii sunu kilifa nag mooy El Malick Ndiaye lii danoo bëgg mu jot ci ba nga xamante ne moom nañ lay taxawee suñu diggal li nga xamee ne moo ñu tiital te ñi ñi war jël kàddu lañ ci wax incha allah li nga xamante ne moo tax nu woo leen ndax AFTU dafa sasu sees bi ku ko am mu sam ci transport lii mooy sunu sees fi leen di lii mooy sunu kër ñuy transporter un million deux cent par jour deux mille six cent véhicules mille six cent véhicules boo ko multiplier receveur receveur nekk na cinq mille emplois te cinq mille emplois boobu ay trente lañ vingt cinq ans kon danoo yaru rek sàmm suñu alal mais li ñuy def jakarta di ko def wala marchand ambulant mën nan ko mais duñ ko def danoo bokk ci réew mi banque yi wóolunu jox nu seen xaalis barke dem leen signé banque banque locale yi vingt cinq milliards boo nu daanee daanal banque te banque bu daanoo réew daanu il faut ñu bàyyi xel ci li nga xam ne moom lafti anti du ay ay balaa balaa du góor-góor rek loolu la ñu jàppee nag mais engagement 25 milliards lañ yor te banque locale moo na ko jox banque locale boo tasee afti wala nga yàq li nga xaay moom laa fi def du too fay te banque bi daanoo réew daanu kon il faut nu toog ngeen déglu ñi nga xam ne ñoo war a jël kàddu wax li nga xam ne moo nu naqar ak fan jëm parce que lii bu ngeen gisee xam ne woowuñu leen rek pour kii dafa am lu nu tiital BRT am na fi nu d'accord ci am na Tanzanie bi bi ñu koy kerte Tanzanie bakkan yu bari rot na mais nun d'accord noonu parce que ay Sénégal lañ terre am na yàqalun dara mais leneen li nga xam ne ñu koy junj nag mu jëm suñu kaw moo nu tiital xibaaru bi xew mi dañ koy door ak ndaw yi nga xamante ni ñu ngi woy di jël géej gi ngir wutali wërëb ñaatee meer ñi doon tukki jël gaal ñoom la marine sénégalaise jàpp fële ca waaxu ndar yi aljuma démb ci fàttali aljuma ba la ñu génn ñaar fukki néew ak juróom moom la ñu génnee ci waaxu Mauritanie yi ci juróomi weer ba atum 2024 bi tàmbalee ak léegi juróomi junni tukkikat ñàkk nañu seen bakkan ci géej gi muy fanweer ak ñett nit ñi nga xamante ñu ngi ñàkk seeni bakkan bés bu nekk ci géej gi gaz bi nga xamante ni moo xëy feeñ ñu bëri kontaan ci wute lool ak nappkat yu féetee ca Langue de Barbarie ñoom ñaawlu nañu bu baax a baax lu xew ca Ndar ñu jàpp ne ñu bàyyeekoo ci tugal mu mel ni béppe ak Cosmos dañu koy caxat caxate ñuy ñaawlu bu baax a baax emplacement bi fi ñu ko defee foofu ci jaatara nga xamante ni dafa bëri jën te loolu day soxee seen liggéey ñoo ngay woo nguuru Sénégal ngir mu jël ay matuwaay ci diggante ñoom nappkat yi ak waa plateforme jaatara ñii di lab di ñàkk seen bakkan ci Dakar ak li ko wër kii di Abdoul mbay mi jiite alliance pour la citoyenneté et le travail mu ngay digle ay jumtukaay yu ñuy jaax ngir génn si suñu sukkandikoo ci ki fi nekkoon Elimane Diawrigne jàpp na ak politique de jeunesse dëgg mooy tax lii daal di dakk waaye temme temme nii mën nañoo amal yenn jumtukaay yu jëm ci wàllu suuf bokk moomeel ak yenn bërëb yi nga xam ne xale yi dañu siy gis seen bopp Abdoul Mbaye jàpp na ni tamit wax nañoo jël ak former ay maître nageur ngir wàññi ñii di faatu ci géej gi xibaaru bitim réew yi dañ koy doox ca Éthiopie bi fësal niki tey gaaw bi ñu deju ñetti fan dinañ ko amal ca réew ma ndax ñu bari ñàkk seen bakkan ginnaaw ba fa ab terrain glissement amee lu ni mel nag mu ngi am ginnaaw bu taw bu metti daal di fa xewee ci yenn diwaan yi nga xamante ni mu ngi ko xaajale ci Addis Abeba ci ñeenti téeméer ak juróom fukki kilomètre capitale Éthiopie fi mu ne bilan bi gën naa fës téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari nit a ci daal di des bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi ëmb mbootaayu taxawaayu xeet wi ñi nga xamante ne ñu ngi leen di wër fexe di leen sauver ci ñombe ba fa am moo ngay wëy ànd ca croix rouge ak yenn kilifa ñu nekk ca diwaan ba dañuy dem ci Algérie ñetti mbër yu daal di samp seen ndënd ci jongante jiitu réew mi nar am juróom-ñaari fan ci weeru septembre ki fa nekk njiitu réew mi di Abdelmadjid Tebboune dana ca bokk ñi ko xamle mooy autorité indépendante ci wàllu élection Abdelmadjid Tebboune di njiitub réew Algérie ci atum 2019 Abdelghani Hassani Chérif juróom fukki at ak juróom ñaar bi jiite mouvement société pour la paix ak kii di Youssef Aouchis nekk ci penc ndaw xew mi waaye di doon taskatu xibaar toll ci ñeent fukki at ak benn des forces socialistes bi ñoom ñooñu nag agence bi fësal nañu seen bokkute campagne électorale bi dinañ ko door fukki fan ak juróom ci weexu ut bi ñu jëm te dana wéy ba ñeenti fan ci weexu setu setumbar ñetti fan balaa ñuy amal jongante njiitu réew mi ci lim lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti million doomu Algérie ñu xayma ko ak lu toll ci ñeent fukk ak juróomi millions yoo xamante ne ni dinañu tabb juróom ñaari fan weeru septumbar seen njiitu réew xibaaru tàggat yaram yi dañ koy door jeux olympique bu Paris ubbeeku na ci teewaayu doomu aadama yu bëri foofu sa seen muy bu njëkk ci histoire tàggat yaram ñu koy amal feneen fudul ci biir stade Paris démb ci kanamu àddina wërngal këpp daa dina wër jaarale ko ci benn batu foofu sa seen ñii di fecc ñeneen ñi di amal ay concert la ca mën a am daal wane nañu pare nañu dëgg-dëgg ouverture jeux olympiques yi ak li taw bi bari terewul feet bi taxaw ndax wéy na lu ëpp ñetti waxtu compétition yi dina daal di wéy am ci weeru ut bi lu toll ci fukki junni ak téeméeri athlète ñu bokk ci jeux yi ak ay million ngi nit yoo xamante ni ñu fekkee ñu bàyyeekoo ci àdduna wërngal këpp ñu daal di àddu jëmale ci afrobasket 2025 entraîneur bi di Otis Ougley junior moom digle na ni équipe nationale dina nekkat place ba mu newoon bu njëkk ba te du ko yemale ci benn at waaye da koy wéyal ay at yu bëri muy entraîneur bu bees bu fédération sénégalaise bu basketball daal di jël technicien américain bi mbëbëtam dëgg bokk ñu ko defee woon ci atum 2016 bu ñu sukkandikoo ci moom am na fii ba afro basket 2025 ci Abidjan ngir mën a def li ni mel lu jëm ci équipe nationale bi li mu mën ñu jeexal ko ak bëre Lac de Guiers 2 delluwaat na ci njabootam ginnaaw ñaari weeri kaso yi nga xamante ne def na ko ci rëbës ki nga xamante ne moo jiite écurie Waalo yoon setalagu ko te li nga xamante ne moo jëm ci li ñu koy toppee ma ngay wëy ndax juge bi jeexalagul benn yoon li nga xamante xamante ne moom lañ koy toppee ci fàttali Papis Cissé ñu gën kaa xamee la de Guiers dañ koy toppee mbirum njuuj njaaj ci luubal xaalis rawatina wàllu visa